xasaayidi min mujizati lmuntaqa salla alayhi man hadaahu wantaqa xasaayidi min mujizati lmuntaqa salla alayhi man hadaahu wantaqa haajat xasaayidi qalba kulli man lahu saadatan walin xaadal aman haajat qasaa'idi quluubal xamalaa lil arsi wa hiya busarun lil kamalaa haajat qasaa'idi quluuba jundi muxdil kafuuri wal kitaabu indi haajat qasaa'idi quluuba saalihiin wali yaquudu llaahu su'li kulla hiin li balsasin min asasin xabilta xasaidi kama laha bajjalta barke borom Touba asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu mbokk yi ñuy saytaan ci réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balo ak di leen baal àq ñu ngi fii nag tey ci Touba ci résidence Khadim Rasoul jàkkaarloo ak jumaay ji boo leen gisee euh, jataay bu am solo bi di ay bindkatu xasida dañoo tabbi nag ci liggéey bu am solo boo xam ne ni sëriñ bi joxe na ko ndigal muy taxawal bisub xasida tey jii di alxemes fukki fan ak ñett ci weeru juillet atum 2023 mu nekk ñetteelu yoon bi waaye xam ngeen ñi ñu taxawal di ñi nga xam ne ni ñooy bind xasidaay sëriñ Touba yi ñoom itam ñu jot ci ndigalal sëriñ bi booba ak léegi ñu koy ànd ak mbokki taalibe yi kon nekk liggéey boo xam ne nii ni mu yaatoo ni taaru te organisé wu ñu ngi ko tënk ci ndigalal Serigne tubaa Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké ñu ngi taxaw ak Serigne Ibrahima Lo bokk ci ñi nga xam ne ni ñooy saytu liggéey boobu. kon jëwrin ginnaaw bi ñu leen nuyoo ziar leen ndokkeel leen bu ñu bëggoon xam kuréel gi ñan la ak lan mooy seen taxawaay dëgg-dëgg ci biir bisub xasida bi lan nga ñuy baaxee. ok asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf. gannaaw bi ñu ñaanalee Cheikh Mouhamadul Mountakha suñu borom yàggal ko fi te day mel ne kuréel gi moom li ko tax a jóg mooy li tax a jóg kuréel yoonu mu murid yëpp te mooy booloo nosu ci genn gum di liggéeyal Cheikhul Khadim kuréel gi nag daa doon kuréel boo xam ne day mel ne day lenn ci liggéey Serigne Touba yi nga xam ne mën nañ ne moo ci féete kaw na nga xamee ne na la ko Serigne bi waxee woon wax ne man day jaamu bi yàlla laa boo xam ne damay liggéeyal yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam ci mbind ba mel ne xasaan xam ne nga xam ne kon moom daa tànn na liggéeyal yonente bi salallahu taala alayhi wa sallama ci mbind ba wax ne lahu xitaabi wa alayya xarama tarkal kitaabati wa kulli karama wax ne sax mujj na sunu boroom xaraamal ci moom bàyyi bind nga xam ne kon day mel ne bind moom farata la ci moom mbooloo mi nag di mbooloom fawaaidul daaray ni dajale bindkat yi sëriñ bi ci ndigalal Cheikh Mouhamadul Muntaxa ndax day mel ne ba mu njëkkee woote bis bi ci at mu njëkk ma rek ci lañ liggéey bi ba bis bi jàllee it ñu dem jébbal ko liggéey bi sàkku ci moom nag mu nos nu noonu mbooloo moo xam ne dañu nosu di liggéeyal sëriñ bi mu tudd nañu Fawaa'idud Daarayni mbooloo mi nosu nag fas yéene bépp liggéey boo xam ne sëriñ bi mi ngi koy santaane ci yoonu murit nu feeñal ca sunu taxawaay te mooy féetewoo liggéey bu réy bi nga xam ne moom la sëriñ bi liggéeyoon ngir di ci liggéeyal yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ci wàllu mbind tey mu mel ni liggéey bi tàmbali ngeen ko ci fajar di bind ay xasida yu fasanti waaye ren jombul am na xasida goo xam ne nii bëgg ngeen ku nekk ci yéen bind ko wala boog mu yaatu lool loolu itam ndax mën nga ñu cee leeral tuuti buñ sukkandikoo ci woote bu am solo bi ngeen wu def jiitu bis bi. waaw kay jërëjëf niñ ko defee woon adiya ca gannaaw rek nga xam ne tànnoon nañ ay xasida yoo xam ne moom lañ ko jagleeloon di ko ci bind waaye ren jii nag maanaam kenn ku nekk xam na pas-pas bi nga xam ne Cheikh Mamadul Muntaxa ak yitte ju kawe ji nga xam ne am na ko ci dëkk biir Touba te mooy fexe ba yeesal worma ji ndaam euh, euh, worma ji moom waxtu wu nekk dafa war na te na ko sëriñ bi bëggee woon ba ko ci matlabul fawzayni day mel ne noonu rek la war amee mel ne Cheikh Mouhamadul Mountakha nag dafa yeesal ndigal lool yi wax ne dafa bëgg worma jooj yi ñu sàmm ko bu baax a baax ci dëkk bi ba mel ne am na taxawaay bu mu ca am ci wàllum baatin bi te mooy xasid ak matlabul fawzayni mel ne tànn na ñoo xam ne da leen koy liggéeyloo ba bis bu yàlla sàkk ginnaaw fajar ñu di ko jàng mel na nag euh, ñu amee bisub tey bii gannaaw moog ndigal loola dajee nañ lépp dañ koy jagleel xasida ak Matlabul Fawzayni nga xam ne danañ ci tasaare ay Matlabul Fawzayni yu baree baree bari nga xam ne lim yu baree baree bari ci Matlabul Fawzayni daanu ko bind ci bis bi nga xam ne gën gaa néew moom dana man ñaar fukk ak juróom-ñett donte dana ko ëpp sax ndax am na loo xam ne joroon nañ ko bind laataa bis bi waaye incha allahu rabbi daal gën gaa néew danañ bind matlabul fawsayni ñaar fukk yoon ak juróom-ñett ak itam yeneen xasida yu bare bare lu mel ne wa kaana xaqan mawaahibu naafi' jaawartu matlabu shifaa yi ak mbooleem xeeti xasida yi rek ba bañu àgg ca waxtu wa nga xam ne ci la sëriñ bi yewi mbooloo mi mel ni mbindkat yi bëri nañ macha allah waaye am na itam beneen bërëb boo xam ne nii ay toppkat ñoo fa nekk ñu bëgg na xam liggéey boobu bu paree xasida yi naka ngeen koy def waaw kay xam nga bind ak topp day mel ne dañuy ñaar yu ànd ndax li ñu wax ne ku wax juum ku bind juum kon day mel ne gannaaw ñii bind moom ñëpp ay doomu aadama la yoo xam nañ njuumteel doomu aadama mën naa am ci ñoom su ko defee nag bu noppee ci liggéey bi am na toppkat yoo xam ne ñoo nekk ci biir nga xam ne bépp jukki bu àgg rek bañ maas ko ba noppi dañ koy jël jébbal leen ko su ko defee ñoom ñu topp ko saytu ko waaye duñ ci yem waaye bu loolu lépp noppee nag dañu dajalewaat loolu lépp ginnaaw bi ñu ko toppee fii ba noppi nag bu bis bi jàllee ba bis bi delsi ñu daja dajawaat ca daara xisbu tarxiya bu ko defee nag euh, liggéey bépp ñu saytuwaat ko toppaat ko topp koo xam ne nag danañ ko wóolu ba mën koo jébal Cheikh Mouhamadul Mountakha. xam naa fi ñuy jeexale ñetti at a ngi nii wala lu ko jiitu sëriñ bi joxe bis bu am solo bi muy bisub xasida di joxe ndigal li mboolem murit yi ànd ci ci bàngaas yu fasantikoo loolu mel na ni kon am na ak joxoñ ak ak junj ak wooteeg bennoo goo xam ne ni sëriñ bi bëgg na taalibe yi sëriñ Tuubaa yi def ko ci liggéeyub sëriñ Tuubaa Cheikhul Khadim yan kàddu nga ciy soññ mbokki taalibe yi. waaw loolu moom liñ ciy dégg rek mooy ñaanuk sëriñ bi. wali yahab jamaa alladi tafarraqa bayna alxiyaari karaman wal tafruqa sëriñ bi day mel ne dafa ñaan suñu borom ne ko mbooleem li nga xam ne tànneef yi dañ koo amoon te loola doon loo xam ne lu tàqalikoo la maa ngi ñaan loola lépp yàlla na ma ko dajaleel mel ne mbooloo murit moom daa ñor sëriñ bi te sëriñ bi moom lépp loo xam ne ma ngi koy ñaan rek sunu boroom euh, dana ko defal tey day mel ne ñor ko ñor moo tax mu dik ko ñaan te lam wax ne wa huwa alladi jaala ma katabtu kama katabtuhu wa ma kasabtu wax ne lépp loo xam ne bind naa ko rek na ma ko binda noonu la ko sunu borom defee te kenn ku nekk dégg nañu jàng yaa rabbi yaj'alil muridina maha fii xisnikal xasini wasamlaj maha nga xam ne ma ngi cay ñaan suñu borom dajaleel ko am mbooloom bañ doon bennum nos day mel ne Cheikh Mouhamadul Mountakha nag yàlla na fi yàgg te wér waaye day borom bis day borom gisin bu kawe ci sëriñ bi tey borom yitte ju kawe ci sëriñ bi tax euh, mbooleem daje yi yëpp nga xam ne mi ngi koy woote te di ci liggéeyal sëriñ bi day mel ne euh, jubluwaay boobu la ciy am fexe ba damaa jëlale murit yi waaye jullit ñi fuñ mën a nekk ci àddina ñu booloo doon benn rawatina nam koy waxee nag wax ne ñun ñi nga xam ne nag ñoo aju ci sëriñ bi bu ñu dundoon sëriñ bi xaalamul islam bépp mën nañ cee féete kaw te te day mel ne dund sëriñ bi nag dara jiituwu ci mbindam mii nga xam ne ni ko Cheikh Mouhamadul Mountakha waxee wax ne ci mbindam mii rek ci lañ ko ci lañ ko mën a xame ñu ngi koy sant di ko gërëm sëriñ Ibrahima Lo doon wax ci kuréel ci turu kuréel gi nga xam ne nii ñooy bind xasidaay sëriñ Touba yi. am waar wu am solo nag ci toolub sëriñ bi rawatina ci bisum ndigal bi nin ko organisé woo ci euh, jumaa ji ak li ko wër ak penc yu fasantikoo ci biir Touba ñi di jàng xasida ñi di bend ñi nekk ci wàllu cet gi ñi nekk ci waru karaange gi ñoom nag dañoo nekk ci wàllum bindum xasida mi waaye nag ni leen ko waxee woon ñu leeral ko lépp ñu ngi ko tënk ci ndigal sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne buñ liggéeyee liggéey bi ba mu pare moom la ñu koy delloo waaye dikk na itam lu yaato yaatu ci bennoo gi nga xam ne ni sëriñ bi sant na ko murit yi ci liggéey bu am solo bi waaye liggéey bi li ngeen ko gisee ci biir salle bi ay góor yàlla di ko bind am na beneen bërëb boo xam ne ni foofu lañ ber soxna yi ñoom itam ñuy bay seen waar ci mbindum xasida mi kon euh, en direct de Touba ñuy ànd ak yéen ci troisième édition journée xasida bi àndoon ak bindkat yi Serigne Touba Cheikhul Khadim yi di leen jox dox daje ci kanam ak yeneen i bërëb jërë ngeen jëf haajat qasaidi qulub al lil arsi wahya busarun lil kamalaat haajat qasaa'idi quluuba jundi muxdil kafuuri wal kitaabu indi haajat qasaa'idi quluuba saalihiin wali yaquudu llaahu su'li kulla hiin li balsasin min asasin xabilta قصائدي كما لها بجلتا إن قصائدي إلى العرش انتهت قطعا وللكرسي واللغو محات يا ربنا قصائدي من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقاه قصائدي من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى هاجت قصائدي قلب كل من له سعادة ولن خاد الأمن